wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفاس حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بناي بنا عافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتداء والتقي عني كيد كل سيتداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد والتزفا جملة ما يفسدان ñoo ngi leen di nuyu fii fi Touba nekk fi wetu Serigne Falilou Fall jëwriñi Cheikh Modou Aminta Fall di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina ci jamono yi nu toll nii di waxeet ci ndigalam ak ndigalal jëwriñam ji ñuy wax seex Moustapha Fall Falilou ak mboolem njabootug Cheikh Ibrahima gépp lii ngeen gis nu nekk ci te Serigne Falilou Fall di jëwriñ ji day ndigal lu bàyyikoo ci Cheikh Mountakha Mbacké mi fi Serigne Touba tàbb ci Serigne Cheikh jëmb mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall. mu jaarale ko ci jëwriñam ji nag di Cheikh Falilou Fall Cheikh Falilou it doom kàddoom Cheikh Moussa Fall Falilou jëwriñam mu yëgle ko murit yi jóg murit yi nag bu ñu dee wax murit yi dëgg dëgg dëgg mën naa ne Baye Fall yi tax ndax bu ndigal jógee xel yëpp dem ci Baye kër goo fi demet ka fa ëpp positif ëpp fa njariñ ëpp fa yërmande bu ñu seetee màndargaam Baye Fall la ñu koy tudde sëriñ bi nag woote ba noppi jiitu ca woote ba ndax way juram di dafa ma dafa ma si dégg mu ne moom Seex Falilu Fall jiwri ja ma nga xamante ni mooy jiwriñi sëriñ Fallu bii toog daa waxoon ni digle ak tere yombul ma ne ko loo ko tax a jafe mu ne digle loo deful ak tere loo bawul kenn mënu ko ñoom ñii nag lu ñu ndigal lu ñu am bu ñu ko diglee ñoo fay jiitu ñeñ fay wow loola tax faaw nit ñi si waaye dara waralu ko nag ludul gëm nañu li sëriñ Touba wax moom mi borom yoon wi te Cheikh Ibra xam ko li sëriñ Touba wax yàlla da koo defal. waq de awa ije la si na daamoo bi xidmati wa ablahum maaraamoo loolu gëm nañu ni Serigne Touba wax na ko boromam gëm nañu ni am na moo tax Baye Fall taxoo di wéy ci ndigal di liggéeyal sëriñ Touba rawatina biir Touba gii nga xam ne nag moom la yàlla sédde sëriñ tuuba te ndigal boo gisee ñu di ko wax des ko dul dégg di ko niig niigal suratul ijaaba bi sëriñ Tuubaa bind mooy gaaw a wuyu ab woote bu la sëb sëriñ woowee bu fa nekk naan ci taa yi wala feeg suba ñoom xamuñu lool daldi jóg rek jëm ca ndigal la doonte guddi la te duñu jàmbat aw mbar mbaab xiif loolu la bëgg ñu xam ko moo tax sëriñ Falilou Fall jëwriñu Cheikh Modou Aminta Fall mii ànd ak jëwriñum Cheikh Moustapha ak mboolem këri Cheikh Ibrahima nag kenn desul ñëpp a ngi teew ci waar wi di gas lii nga xamante ne dañu koy defare suufas Touba ngir bëgg nit ñi am fu ñu jaar te duñu jàmbat dara ndox yi taa ci dëkk bi ak taq-taq yi bu ci waa kër Cheikh Ibrahima waxul du deñ moo tax lu yëngu lu ne dañu naan nañu ko wax Baay Faal yi ñu ndikk defal ko Serigne Touba waaw kii def bëggug sëriñ Touba mooy def ba defee ne du am ak bëggam Serigne Touba la yàlla gërëm yonent bi gërëm ko mu wëlbatiku nag am jëwriñ ji toll ne Cheikh Ibrahima Fall mu Mouridine Cheikh Ibrahima moomu wone nu ñuy war a defal Serigne Touba Serigne Touba tëbul rek di liggéey lu de déedéet daa dem ba am ko xam nu ñu koy liggéeyale mu di ko liggéeyal ba mu xam ne nii la. bare waa na ko daan ñëw ci Serigne Touba te boo dikkee boo tolloo ci jàng da lay yóbbu nga jànge waaye bu xamee ne sa sa sa sa saw melo ëpp na jàng mënatoo koo def mu boole la foo xam ne fi boo fa nekkee boo fa jógee ku jàng dana la ñee ndax jàng loo gis di ko xam waaye boo mën a liggéey tànn ak yar ak teggin lu bëgg am ko loolu la Cheikh Ibrahima tax teel a xam te fekk na ko am xam ba noppi. kon liggéey bii bu ko sëriñ bi di woote bu leen deen da ko tànn naan ñii laay woo bay ñii ndax li ciy juddoo ñëpp la ko yéene li ciy juddoo ci liggéeyal sëriñ Touba ñëpp la ko sëriñ bi yéene moo tax buy woote ñëpp lay woo waaye nag ci Baay Faal lay tàmbale ndax ci la ëppee ab sañ-sañ ci la ëppee yaakaar it ne bu leen tuddee ñoom kenn duutu am sañ-sañ ab toogati ngir danga naa Cheikh woote na. loola waral bu dee woote Baay Faal lay jëkka woo door wax nag ni jullit yépp nag laa woo mboolem fu jullit nekk rek sëriñ bi li mu gis ba xam ko te gëm ko bëggoon na ñëpp am ci kon sëriñ Mor sëriñ lu nee na ci ndigalal jëwriñam ji nga xamante ni dafay jegewul waaye kon mooy wax mooy sëriñ Moustapha Fall liggéey bii daal tàllal na loxoom ñëpp la ci woo ndax moom yëg na te gëm te gis na ni njëriñ yi ci soqi ko te bu sañoon ñëpp jariñu moo xam góor nga mbaa jigéen moo xam mag nga mbaa ndaw boo dee ab julit daal Serigne Fallou yéene na la njariñ li judd ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii moo tax mu woo ci ñëpp loolu daal bokk na ci leen war a leen waral ak yow boo amee leneen looy laaj nag nga laaj ko. bépp taataa bu nekk ci dëkk bi rek. waaw boo xam ne barab lay doon boo xam ne bu waxuma la oto waaye tànk sax dafay jafee jaar sëriñ bi bëgg nañu dindi ko defar ko ngir jëmmi sëriñ Touba ndax Touba kat seetal ko moo gën taqal ko ku bëgg seet àddina ak seetalal Touba waaye koo xam ne jàpp nga ni nag sa ñàkk xam yóbbe na la seetal Touba ah, du dara fi yow yow yaa nër te doon dara te doo am dara it naka Touba gi nii daal fépp foo xam dañu naan lii wuru fee ne bu ko sëriñ bi yëgee bu ko santee waa kër Cheikh Rafal ñu def ko bala fa war a ne nekk fa. mbale mi tamit yéen ci daan jiitu kañ la ñuy tàmbali bale mbale mi bu ñu nee dañuy bale am na ñoo xam ne Ndakaar lañuy jóge ay camion la ñuy indi indi ay fourchette ak ay bale ak ak i parla te ñu ngi jóge caaro yi ku ñu wax Moustapha Niang mooy ca ñi la bokk. ñooñu bu ñu ñëwee yeb bi bale yi ci kër ga dañu koy partage ci kër Cheikh Ibra yi kër Cheikh Ibra ga dañu yóbbu fa ab lim ngir bëgg ñu mën a bale Touba seetal ko noonu la ñuy bale mbale mi bu màggal gi jub see léegi nga gis sëriñ bi rànguwaat nii toogaat ci kanamu mbooloo mi ñu wëlbatiku di setal Touba ndax ñun dañoo bëgg a set faw moo tax du lu jéem a bàyyi luy taxal Touba Mor Touré Gaëtane wa kullama anka yoo xoyaa badi فلتفرق بيني وبينه السليم أنا الذي أسلمت وجهنا إليك عاصم كل نصنا أنا الذي لست عميل أبدا إلى سواك هنا ثم خدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الوسيم وأنت عندي أفلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت عندي أفلا مدافع يا يا أنت ذو الجلال الواسع وأنت عندي أفلا مناسب يا رب أنت سلمي الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فانت حسبي الدان وأنت حسبي فلا أسد يا فرد أنت سنة يا ماجد